bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ñoo ngi nuyu cheikh mahamadul muntaxa mbàkke bachiru di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi te may ko ak wér di nuyu cheikh sëriñ Amdi Fall moom suñu Modou Mbenn mi nga xam ne ñi ngi toog ci ëttam bii di ëttu maam Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal sama borom yàggal ko fi te may ko ak wér waaye nag di dellu di sant suñu borom tabaaraka wa taala mi nga xam ne lépp lu xew rek ci moom la bàyyi ko di E, yeesalaat nag suñu laxasaay ci suñu digganteeg Serigne Touba Xaadimul Moustapha mi nga xam ni moom la fi sunu maam Cheikh Ibra Fall nekke woon di ko liggéeyal di sàkku ngërëmam sax ci ay ndigalam loole rek ci la ñu fas yéene nekk ba keroog ñu koy fekk mu mel ni nag am na lu xew loo xam ni xew-xew bu tiis la kon dañu ci jaale mbokki Serigne Moustapha Niang mi nga xam ni ñoom la ñoom la seen njaboot dem. ginnaaw bi mu nekkee njabootuk Cheikh Ibra Fall waaye bi mu nekkee njabootuk euh, euh, Cheikh njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall bokkutam ci njabootuk sëñ Modou Lo Isa euh, mu ngaabu kon noo ngi leen koy jaale di leen wax sigi leen ko diggaale di bokk ak ñoom tiis wi tamit waaye muy loo xam ne nag dañuy nangu dogalu suñu borom ndax moom mooy ki nga xam ne moom la soob. loolu sëñ tubaa naan fa kullu ma asaabana lam yakuni yuridu an a ana fi zamani wa kullu ma axta ana lam yakuni yuridu an yusibana min maani lépp loo xam ne mooy nañu rek suñu borom moo namutoon mu dal ñu waaye lépp lu ñu dal suñu borom moo namutoon mu moy ñu kon ñu di profité di leen leeral ne euh, li nga xam ni mooy ndigalul sëriñ Touba radiyallahu taala anhu jóge woon ci Cheikh Mamadul Muntaxa ñëw ci maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbend ndigal loolee ñun ci loolu rek ci lañ nekk te duñu ko wàcc mukk dañoo xëy jot ndigal ci sëriñ bi ci liggéeyal ko ci dëkkam bi muy sàmmal ko war may Tuuba loolee nag euh, moom la sëriñ bi euh, fës yéene du ko wàcc benn yoon lenn nag soobuñu ci lu dul ndigal loolu euh, lenn lu ne nag ñi ngi koy dégg ci li nga xam ni moo xew waaye ki nga xam ne mooy sëñ Moustapha Niang moom bokkoon ci kenn ci ñi nga xam ne demoon nañ foofee ngir jooxe ndigal li leen sëriñ bi santoon te loolu mooy seetal dëkk bi laabal ko ci li nga xam ni mi ngi ci biir dëkk bi te ak dëkk bi loolu mooy li nga xam ne moo leen taxoon a jug ba ñu demee it ñañu fa fekk di ñoo xam ni xaj na ñoom dañoo féttirlu ci fas yéene def fi loo xam ne wuute na ak li nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg loolee nag moo jur li am lépp am waaye Eh, ku ne xam na ni Baay Faal yi eh, bu fekkonte ni dañoo jug dem fa ngir lor kenn maanaam lii xew mën naa xewee ci seenu wàll ca wàll geneen wàll waaye ki ki bakkanam rot ñu ñàkk ko ci Baay Faal yi la bokk dégg nañ nag ñuy wax ne eh, wax nañ ni yoruñu woon ay ngànnaay ñoom defuñu loolu waaye loolu moom yoon mi ngi ci te xam ne ñi koy saytu muy enquête bi ñoom xam nañu lépp wala bokk danañu am na seenu xereñ may na leen ñu mën a xam lépp euh, sëriñ bi nga xam nag moom la ñuy liggéeyal muy Cheikh mun taxa moom moo yónnee ci sëriñ bi xamal ko ni ko loole nañ ci ne tekk te déglu ko ci la nga xam ni moom moo ko ca war dana def lépp noonu nag ndigal rek moo ñu yóbbu woon ci liggéey boobu kon ndigal tam moo ñu wax ñu ne tekk dal euh, ba jot ndigal loo xam ne moo wute ak loolu li li ñu li ñu nekkoon nag muy liggéey bi di saytu war mooy dëkk bi loolu moom deltuwuñu ci ginnaaw te tey jii jii waxtu wi may waxe ñi ci war a gont gont nañ dem ci terrain bi ngir liggéeyi loolu la nga xam ne tamit moom la leen sëriñ bi santoon rek muy liggéey ko ci ak dal te xaddu damm loolee ci lañu nekk xaj na nag ñi nga xam ne ñoom la ñuy fekk ci jotaay yooyu ñoom ñu féttéerlu ci am pas-pasub li sëriñ bi bëgg ci dëkk bi duñu ko def ba pare boole ko nag ak bëgg a doxee aw sañ sañ-sañ boo xam ne méngoowut ak li nga xam ne moo war a am loole nag day mel ni moo indi lii xew xew ci eh, ndax ña ngi cay wax seeni yu baree bari yoo xam ne duñu dugg sax ci détail yooyu li ci gàttal daal li ma bëgg ñu xam ko mooy li ñu sëriñ bi santoon muy saytu war mooy dëkk bi tey jii la ñu gën a nekk ci loolu fii may waxee gi yéen ñi ci war a gont dem liggéey ñi ngi ci liggéey bi waaw la sëriñ bi wax nag ci nag ñu ne tekk déglu ko ñun li ma waxoon rek laa taf aloo shay'an bi xayri isnin fal isnu shartun fi xabooli shahni sëriñ bi moom jëfal ko day tax lay tax nga daje ci ak ngërëm mooy nga teg ko ci ndigalam lim ñu sant nag kon mooy ñu ne nañu tekk nañ na tekk te déglu ko ca wàllu googa loolu noo ngi ciy déglu suñu jëwriñ ji nga xam ni mooy suñu am di faal moom suñu Modou Mbenda moom ma ngi ciy déglu sëriñam bee di Cheikh Mamadou Muntaxa lu mu ca santaane rek ca loolu lañu ñu nekk. yéen démb yéen a fi nga xam ne fa la mbir mi la fa xew ñoom lu bëree bëri biñ ko déggee ñoom dafa yëkkati ay kàddu wax ne am na jur gu fa ne woon dem nañ te yéen nañ jàpp ne yéen a ko yóbbuwaale wax nañ ne fetal yi nga xam ne ñoom lañ waxoon ne ñoom ñoo koy téere foofu loolu dañoo waxaat ne ñoom yoru ñoon benn ngànnaay lu rut ay jaas yi waaye fetal bu dee am na seen côté la amoon loolu loo ci mën a leeral ñuy seetal waaw loolu moom xaj na dañoo def seeni jëf tey moytandiku ak bëgg mucc moo tax ñu àddu ci wàll googu waaye fetal yi moom ñoom ci seen bopp xam nañ ni ñoom ñoo soqi ay bali fetal jëmale ko ci mbooloo mi nga xam ne moo ci ci murit yi nga xam ne ñoo nekkoon ci Baay Faal yi mm-hmm. ba bakkan rote ci loolu leer naññ la waaw am na ci te yëmuñ sax ci kenn kii faatu am na keneen ku bokk ci ñun koo xam ni ñaar ñoo xam ni ku ci ne dóor nañ ko bal ku ñuy wax sëñ euh, Bachirou Fall ak ku ñuy wax euh, Cheikh Diop kenn ku ne ci ñoom am na màndarga boo xam ne xaj na li kii. dalu dalu leen waaye seeni pexe tam bu juboon ci ñoom fii kii jaar rek fa foofa la ñooñe di jaar kon bu ñu waxee loolu ba ci jur googu ñuy wax am na ci yoo xam ni ay oto ñoo dal ci seen kaw oto yee jaaj seen kaw bu ñuy wax ne dafa am yeneen yu ñu fa jël fii de mbooloo mi nga xam ne bu ñu bàyyikoo ca foof ñoom ñëpp fii sa fii lañ sosi amut ci mbooloo mi àndoon kenn ko gis benn xar wala benn bëy woo xam ne indi nañ ko fii waaw ndax ñun loolu taxuñu woon a jug soxlawuñu ay béy soxlawuñu ay xar jooxe ndigalul sëriñ bi mooy li taxoon ñu jug dem ci eh, terrain bi ngir liggéeyi ba sëriñ bi ni mu bëggee dëkk bi set mu set loolu rek moo ñu tàbbaloon ci liggéey bi looleen ña nga ca ba tey tey ji lañ ko gën a wéyal Mhm. loolu noonu dégg nañ ko bi yooyu noonu yëpp biñ leen muy leeral yoo xamante ni def nga ko ci am am solo tey bu fekkee am na message boo yëkkatewaat parce que boo xoolee suba ak léegi mbir mi bëri na yéen talu leen woon sax ngir wax ci ndax yéen a ngi woon ngir nu ngeen fexe ba de jébbal boromam ki nga xam ne mooy sëñ Moustapha ak ñi nga xam ne ñoo ci am ay gaañu gaañu ñu faj leen tey boo amee leneen looy leeralaat ci mbir mi bi ngeen demee foofu ñoom wax nañ ne a ñëw am luñ leen laaj ñoom ñu uh, wax ne fii dara xewu fi mais bi ngeen ñëwaatee mbooloo mi danoo bëri bëri goo xam ne lu toll si juróom-ñetti oto yoo xam ne demoon nañ foofu bi ñu ñëwee dañoo dajji bunt yi dal seen kaw naan génn leen ñu rey leen loolu loo ci mën a leeral ñi nga xam ne ñoo lay seetal. <laughs> wax loolu ay wax la yoo xam ne wax yu ay ay xuraafaat la rek waaye eh, ña fa dem la leen tax a jug lu fa nekk la ci ay tilim tilim yoo xam ne dafa méngoowut ak li sëñ bi bëgg ci dëkk bi te sant ñu loolee ñu jëlee ko fi loola moo fa nekk ñu demoon di ko fa jëlee demuñ fa woon ngir maanaam jote kenn la ñu leen di sant su fekkonte ni bi def nañ ko foofee yëpp du fa duñ fa àgg tey la invitation yooyu yëpp jóg ñoom ñoo njëkk a jóg soqi ay bal ci kaw mbooloo mi ba lii ci xew am. waaye amut kenn kuñ mën ñoom mënuñoo wax ni jëmale nañ ci ñoom benn ngànnaay boo xam ne ngir lor leen nde mbooloom Baay Faal yi xëjuñ ci kenn kon su fekkoon wàll googu moo leen fa yóbbu yaakaar naa dina ne neneen te ña fay dem it saa su ne dañ leen di ñaax ci bu ñu jugee di dem wax leen nañu war a doxe ak li sëriñ bi bëgg ci liggéey bi maanaam ba lépp am te xaddu dam kon loolu moo tax ba nëgë ni déggoo ñoom ñu wax ne kenn ci ñoom lor nañ ko waaw la fa am ci ay gaañu gaañu yëpp ñoom ñoo ko def ba loolu amee it li ñu def mooy jël ki nga xam ne bokk na ci ñun te ñu lor ko indi ko seet nañu ko jébbale boromam xaj na nag euh, version yi bari na kenn ko nekk ngi wax waaye lii ma la wax mooy li am mm-hmm. waaw te wa ma yid naa illa bi ma na ñoom sax am na kenn koo xam ne ni nee nañ gaañu na si ñoom dafa génnoon yor benn caméra boo xam ne xaalis ak woon wax nañ sax li mu xaalis bi ne ëpp na juróom-ñett fukki junne kalpeem dañ ko yóbbaale lépp seen kaw lañ ko teg tey ji seen bi ngeen dem foofu noonu dafa am ñeneen ñoo xam ne danoo nekkoon ci kuréel gi ñu bokkut si yéen wala bi ndaje mi bëree foofu noonu ku nekk jógee fenn ñëw euh, mbiri naka la tëddee woon foofu noonu. waa xam nga da ciy am yoo xam ne moom comme bi yëf yi xewee mujj na foofu mbooloo bari na fa yooyu ñuy wax nag ñoom ñoom ñoo ko yëg waaye fii nga ko waxee ñun lañ koy soog a yëg kenn ku bokk ci ñun ku fa jëlee lenn amut ndax ñi ñi yabaloon ñuy liggéey ay nit lañu yoo xam ne ci ndigal lañ tënku saa suñu jugee dem ci terrain bi danañ leen yàpp te bu ñu ñëwee lépp lu xew danañ ko delloo si waatu ko te ay kilifa lañ leen di booleel yoo xam ne fu ñu leen joxañ fa la ñuy jëm fu ñu suñ leen leen euh, ba leen ñu baax amut kon lenn loo xam ne def nañ ko ci lu mel ni yooyu ñuy wax xaj na nag tuuma moom yàgg na fee am waaye li leer te wóor daal mooy euh, faat nañ bakkan ci ñun gaañ nañ ci ay nit ci ñun la ca des it nag moom mbir la yoo xam ne dëkk bi dafa am borom te ñu nit dañoo tënku ci kilifteef ki ñuy liggéeyloo moom lañuy déglu baat ba bàyyi ko waat ci moom ñëw ci ñun ca loola rek la ñuy concentré wu ba kere ñuy gis loo xam ne moo dindi loolu. côté ñoom am na ñoo xam ne nee nañ teg nañ leen loxo loolu waa police ñoo ko def ñu jart ne dégg nañ ci ñenn yi sax ñu ne yéen seen kuréel gi am na ñoo xam ne teg nañ leen loxo police def ko loolu loo ci mën a leeral ñuy seetaan. Euh, xam naa daal am na ab lim bu ñu ci jàpp téye ko loolu gendarmerie moo leen téye ñoom ñi ngi ci yi yoon loola ci ñoom la bokk loolu ñi ngi ci loxoy yoon la ca yoon war a def ci enquête mi ngi ci di ko def la ca war léppit ñoom xereñe nañ ko te danañ ko def bu soobee yàlla kon nañu bàyyi lépp ci loxo yi yoon rek. jërëjëf ba Bada xam naa bu amee message boo xam ne di nga ko laajte waale mbokki taalib yi nga xamante ni suba ak léegi mbir mi ba mu xëyee ba léegi yéen a ngi doog a addu ngir rek ku nekk booy wax nga xam mbir mi fii ngay jëlee fi ngay daanalee ban message lay doon. waaw xanaa nit ñi ànd ko daal rek te bàyyi wàññi maanaam wax ji nga xam ne li ñuy wax xamuñu ko waaw bu ko defee ne ñun ñi nga xam ne nag dañoo tënku ci kër Cheikh Ibra Fall li nga xam ne moom la ñu sëriñ bi santoon rek ca loola la ñu nekk ba tey fas yéene baatub sëriñ Tuubaa bi daal jëy jug jëm ca kaw te du laal suuf li sëriñ bi bëgg ci dëkkam bii moom ñi ngi gën a engagé wu tey jii fas yéene xam le ne maanaam ni ko sëriñ bëggee dana ko ne amee loolu daal mooy suñu kàddu yu njëkk mooy suñu kàddu yu mujj li ñu sëriñ bi sant ñanga nga ca te duñ ca deltu ginnaaw mukk